asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu di leen ziar leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube la chaîne des youtubeurs ci seen programme comment gagner de l'argent sur youtube naka la ñuy gagner xaalis ci youtube vidéo ki leen koy defal di Pamour loolu ñu leen koy defal en wolof vidéo tey bi nag euh, notification bu youtube envoyé démb la euh, wane ni changement yi mu woon ci debut mille début 2023 bi waa daf koy commencé euh, def bu ngeen fàttali ko mois de septembre bi passé am na vidéo bu ñu defoon waxoon ni am na ay changement yu mu annoncé am solo ni dina ko def ci début deux mille vingt trois euh, début deux mille vingt trois nag comme deux mille vingt trois commencé na YouTube commencé na nag ñu euh, naan <laughs> digee maanaam digee digee boor la waaw ah, digee boor la ñàkk a jëfe la nga digee woor la <laughs> loolu la rapport boo xoon voilà léegi euh, si loolu YouTube bi mu njëkk a tàmbalee mooy monétisation vidéo short loolu la YouTube ubbee li nga xam ne moom mooy deux mille vingt trois bi voilà muy. vidéo short yi ñu doon dugal nga xam ni amul woon monétisation mais fond la amoon muy bonus fond short fond short boobu YouTube da koy remplacer ak monétisation vidéo short yi à partir du premier février ah muy le premier bii di ñëw février YouTube day commencer léegi di monétiser short yi comme ni muy monétiser vidéo normale yi bu ngeen seetloo sax vidéo short yi léegi booy défilé da ngay défilé i fois ay ngis ay publicité ñu insérer entre les vidéos yéen a ngi koy remarqué kon gis na mi ni dox commencé na ko nag di appliquer loolu nag léegi dina effectif li nga xam ne mooy premier euh, février bii di ñëw ci la ci créateur di mën a commencé gagné xaalis muy nag xibaar boo xam ne xibaar bu neex la parce que euh, ñi doon dugal sóor ñëpp ñu ci gagné xaalis sóor li mu la doon indi rek mooy visibilité bu gaaw dina indil abonné gaaw et mais doonoo ci am ay heure pour compteur heure bi doonoo ci gagné tam xaalis pour monétisation voilà. comme ñi fii ñu yor TikTok yi rek daanaka TikTok boo yoree Sénégal doo ci gagné benn yenn rëy doo ci bu développé yenn développé yi nag peut-être ak euh, li nga xam ne mooy euh, publicité yi ak euh, comme influenceur ngay mujj nekk boo amee TikTok dox da ngay mën a gagné ak placement de produit ak publicité yi am da nga koy def ci vidéo yi mais yi xaw a yembala yu ndaw da ngay dugal noonu pour visibilité mais doonoo cee gagné lu nga xam ne am na solo léegi nag vidéo short yi ñu ñëw régler problème boobu parce que YouTube ku nekk xam ne dañuy njëkkante waa TikTok. dañuy bañ TikTok dem imposer monétisation léegi ñoom ñi am jafe-jafe parce que TikTok commencé na euh, fonds yooyu ñu ngi koy joxe ci ay dëkk ay dëkk sañ ñi ciy gagné mais Sénégal bokkagu ci da ngay sañ euh, ñoo xam dañuy obligé ñenn ñi nga xam influenceur lañu wala créateur de contenu xam ni seen TikTok yi am na doole dañuy obligé ubbi ay compte si dëkk yooyu léegi bu ko defee suñ fa xamee kenn comme kooku ubbil leen ko envoyé leen coordonnées ñoom ñu connecté fii di dugal yi di monétiser di ko jaarale ci seen contact yi nekk extérieur di def tellement dafay xaw compliqué nga nekk ci TikTok bi defar vidéo dafa metti nga defar vidéo suba ngoon te doo ci <laughs> gagné dara voilà mais nag YouTube mi ngi réglé si problème boobu parce que ñu nekk TikTok ñëpp léegi war nañ commencé xam ne léegi vidéo boo defarati soo dugalee TikTok dugal YouTube waaw nga am compte YouTube am na sax TikTokers yi am naan nañ loolu depuis mu ngi xaw a jël temps ni ñu amee euh, compte TikTok noonu la ñu amee chaîne YouTube ñu xam ne tamit chaîne YouTube yi li nga ci mën a gagné mooy ëpp li nga gën a mën a gagné si parce que YouTube ak TikTok c' est diamétralement opposé bi ay américains ñoo ko moom bëri ay chinois ñoo ko moom maanaam ay peuple la si ak euh, ni ñuy xalaatee business ak euh, wàllum lépp lu si jëm ci wàllum dama ko tënkeer muy business rek voilà ni ñu koy xalaate bokkul américains ñoo gën a open ci wàllum business comprendre nga stratégie marketing chinois yi ñoo gën a nekk ay conservateurs ñoom plus xaalis bi pour muy gën a def Chine la ñuy gën a xalaat que pour di ko distribuer américains yi foofu ñoo gën a ubbeeku pour mën a am nit ñi tasaare pour ñëpp mën jéggi seen bopp bu yàggee yëf nekk yëf yi ñëpp côté boobu euh, américains yi duñ ci moroomu chinois yi voilà euh, loolu réalité bi voilà en réalité loolu dëgg yi waaw moo tax TikTok euh, nit ñi li ñu mën a am ci YouTube duñ ko mën a am ci TikTok te TikTok nag c'est fun parce que li tax mu dox mooy ñoom dañoo xool réalité jamono li ñu dëppool ñu ubbi ñu ubbi plateforme boo xam ni dafa dëppoo juste ak réalité yi muy lan muy smartphone yi téléphone smartphone yi ñoo xew smartphone yi nit ñi version day taxaw nit ñi booy utiliser sa téléphone doo ko tourner da koy taxawal léegi ñu ñëw créer vidéo yu taxaw nga xam ne da ngay defe ni ngay ni ngay taxawalee téléphone bi noonu ngay defaree vidéo bi noonu ko koy uploader mu dugg ci biir euh, plateforme bi aussi simple que ça maanaam dafa pratique dafa simple comprendre léegi nag bi ñu ubbee xaw a sonal YouTube tuuti YouTube gis na moom it daal di intégrer TikTok biir YouTube tuddee ko short shows yooyu nag léegi moom la YouTube fas yéene nag ba pare jiituwaat léegi ba TikTok commencé ko monétiser voilà parce que bu ko monétisation bu xasee dugg rek loolu dina wàññi lu bari si waa TikTok xam naa TikTok tamit dinañ jéem ak dina tax sax ñu jéem accélérer cette monétisation bi pour def ko ba pare élargir ko ci dëkk yu gën a bëri ba mu mën a si Sénégal loolu entre parenthèse voilà. léegi bu ñu ñëwaatee ci li nga xamante ni mooy euh, email bi nga xam ni YouTube envoyé ko créateurs yi dinañ dem léegi ci ordinateur bi pour mën koo faram-fàcce incha allah bu dem bu ñu demee tam ba YouTube notification bi feeñ parce que feeñ seen yi ma yorob xool naa ko notification feeñagul dañ ne biir semaine bi wala fii ak six semaines daal maanaam du passé daal sept jours ñëpp dinañ jot contrat bi si seen YouTube studio pour mën koo accepter condition yooyu loolu mooy signé pour nga signé contrat bi contrat internet noonu la ñu koy signé da ngay cosé wala acceptant condition yi validé loolu mooy signature voilà ku ko def nag yaa signé liñ bind ci contrat bi lépp nag nit ñi nag xama duñ jël seen temps di lire li nekk ci contrat si ñu mën a ñi mënul lire moom xam ko mënuñu lire duñ ko lire voilà am na nag lu si bari yoo xam ne ay point clé yoo xam ne expliqué woon nañ ko ci ay vidéo yoo xam ne tënkoon nañ ci conditions yi buñ ci gisee tam loo xam ne ci conditions yi lu jara def vidéo xëy na dañ ci def vidéo tamit dolli ko ci vidéo yooyu incha allah rabbi mais pour l' instant euh, fii ak jours boo ci gisee si sa notification ci sa biir YouTube SEO nga accepté ko lu tax nga war ko accepté parce que soo ko ak soo nga bañ ko accepté ba juillet du wàññi dara ci sa chaîne mais doo monétiser say choses comprendre nga. li tax nga war a accepté mooy fekkee yaa nga am ay vidéo short même bu dee benn la nga accepté ko dina tax vidéo short boobu di monétiser mën la jural xaalis deuxièmement soo ko accepté wul ba le 10 juillet bii di ñëw muy des fii ak 6 mois YouTube day dindi sa monétisation intégralement chaîne bi ci boobu dootul monétiser amul soo di de yépp lay dindi sa monétisation lay désactiver day jàpp yow bëggootoo bokk ci monétisation pour nga monétiser waat da defaat demande bu bees ñoom ñu vérifier waat ba am apte nga pour accepter ko loolu nag je crois jarul jarul nga monétiser waat di fa egg voilà moo tax conditions yi bu ñëwee damay conseil ñëpp ku jot conditions yi valider ko accepter ko voilà parce que condition YouTube moo condition banque yi ñoo dem boo demee du compte banque dañ lay tegal këyit bi ñu def contrat mooy bindi série tegal la ko ne la signé xam nga euh, dañ la war def op dañ la waroon indi ay ay options yu bokkul xool bi nga la neex mais benn benn benn contrat la pour ñëpp. bëgg signé bañ signé sinon nga génn doo bi compte banque YouTube tam noonu la bëgg signé bañ signé boo signé nga continuer boo siñewul wul doo monétiser aussi simple que ça voilà am joxuñu la beneen choix quoi <laughs> loolu la l' essentiel balaa ñu si démonétiser kenn le 10 juillet la waaw ñu ngi demaan nag ñuy seetaan voilà euh, ñu bañ a négliger bañ jékki-jékki rek ñuy démonétiser seen chaîne waaw ku ñuy suivre normal moom loolu la dal parce que comme ni ñu ko ñoom dañu suñu notification bi ñuy YouTube studio dinaa si def vidéo incha allah wane niñ koy activer comprendre nga bala ñuy egg le 10 juillet tam bu ñu fi defaraatee message dinañ ci def vidéo comme ça pour euh, informer nit ñi avant ñu dem ci ordinateur nag pour woo xool message bi ñu yónnee message bi li ma leen nii la tënk rek mais ñu xool ko euh, dañuy wax tam lu am solo mooy ñu si bëri damay gis dañuy abonné ci chaîne bi euh, mais yi suivre bi mu laaj duñ ko def par exemple tey bu dee yow da nga da nga jékki-jékki doon recherche dara ci ci YouTube tombé ci vidéo bii nii seetaan ko rek. daal may bëgg contacter whatsapp ne ma léegi damaa bëgg a xam ni ñuy créer seen youtube ni ñuy monétiser te te yow nga war a xam ne vidéo bi benn vidéo la bu nekk ci seen youtube bu ay yeneen vidéo ne war ngaa xam ne ni liy dem di dem di dem ba indi vidéo bi am na yu baari yu ko jiitu yooyu tam nga war a ba pare waaw ñu si bëri tam loolu mën naa obligé ne leen noob yeneen vidéo yaa ngi biir youtube boo seetaanee yooyu di nga xam ni ngay defaree sa seen youtube ni nga koy monétiser AdSense bi lan moo ci aju ni nga koy permettre et cetera et cetera voilà ak ñu bëri tam léeg-léeg dañuy demander ay yeneen façon vidéo ñu koy def ak yooyu léeg-léeg maam bëgg gi mi ngi fi mais moo fi newul parce que vidéo yi ñu def ci chaîne bi maanaam gagné wuñ ci xaalis bu ñuy mën a faje suñuy soxla léegi bu ñu toppee rek di chaque chaque jour suba ngoon ñuy def ay contenu jawan nit ñi ni ñuy defee ni ñuy defee ñuy defee lii damay ragal après facture internet bi dina ñëw duñ ko mën a fay loolu day poser <laughs> day poser problème voilà moo tax nag dañuy li li ma gën a concentré daal mooy YouTube bi voilà su amoon tam su amee ñeneen ñoo xam tam dañuy am yeneen domaine yu ñu mën a jàngale ñu jàngale ki jàngale ki jàngale ki jàngale bu defee kon kenn ku nekk loo bëgg rek xool kenn ku koy jàngale nga def suivre ko mais ñun li am ci internet ci ay business mënuñu ko jàngale parce que sinon euh, parce que dama koy waxee rek seenu tutoriel amul xaalis fii France di ko def en da ngay gañe xaalis ni ngi ci gañe mën na nekk sa liggéey yëpp def ay tuto kese soo amee seenu tuto nekk États-Unis su xasee abonné su xasee monétisé mën nga see maanaam concentré bu nekk sa liggéey ngay def tuto kase mais chaîne tutoriel fii ci Sénégal mënoo jël tutoriel rek def ko sa liggéey comprendre il faut ngay yor yeneen chaîne di dem ci yeneen affaire wala ngay def yeneen formation wala ngay def yeneen liggéey ci suuf ci internet yoo xam ne du boo ko seenu tuto bi chaîne tuto bi objectif bi la pour ñëpp mën a ubbi ay chaîne YouTube mën ci def monétisation ñu xamee ko noonu mais chaîne tuto du lu am xaalis voilà dama koy ko wax ñu bari bu kenn gis chaîne ñu def chaîne chaîne di jàngale YouTube daal di ubbi chaîne di jàngale di nga ko di nga ko def un an doo mën a gagné benn cent mille franc loolu tam dañ koy leer ku bëgg gagné xaalis Sénégal xoolal contenu yoo xam day am vue parce que fii monétisation dafa faible kon xaalis fon la nekk ci vue yu bari yi ngay mën a gagné bu dee dëkk yu mel ni États-Unis lay mën nga am chaîne YouTube boo xam ne mën na am cinq mille abonnés wala deux mille abonnés comprendre nga ngay am deux cent mille vues par weer gagné si loo xamante ni mën na nekk salaire fii mënoo ko fi boo amee chaîne boo xam ne ay mille cinq mille abonnés la cent cent mille deux cent mille vues di nga ci gañe li nga ci du a du mën a gum nekk salaire bu am am solo loolu tam ay détails loo xam bàyyi ko xel dafa baax kon lu ñuy def mooy euh, dem ci ordinateur bi euh, faram message bi nga xam ne YouTube envoyé nañu ko ñëw tàggu. voilà léegi ñu ngi si euh, boîte Gmail bi boîte Gmailu Galsen Tube bi la quoi voilà boo xoolee ñu wër message yi nga xam ne moom la ñu YouTube envoyé boo xoolee fii nga mi ngi nekk le neuf démb la di nga mi ngi ni YouTube Creator voilà YouTube Creator. bi gis nga mu defal ñu euh, YouTube par programme partenaire bi voilà am na ay changement yam rek yi am mais bi message bi en anglais la parce que dama dama abonné ci seen seen si seen ñaari kii yëpp en anglais en français di euh, nga wax important nouvelle condition d'utilisation disponible cette euh, cette semaine voilà ñu cliquer ko voilà message moo nekk nii kenn ku si nekk nga nekk créateur waa li nga ko di nga ko jot voilà message moo nekk nii voilà mu def ko noo ma oh, xool wàññi dama bëgg lépp génn quoi voilà nii daa ko bëgg bëgg logo dama bëgg ci suuf feeñ voilà. léegi message la moo ci nekk waaw YouTube ginnaaw ba mu la nuyoo mu def bonjour euh, Pape Mor Lo seen Tube bu dee yow mu dee yow sa chaîne mi ngi tudd Buzz 221 danaa la bonjour Buzz 221 voilà <laughs> léegi mu waxal ñu fii. Comme nous l'avons annoncé en septembre, le programme partenaire YouTube a proposé aux créateurs et créatrices de nouvelles façons de se développer et de générer des revenus maanaam mu ne comme ni ñu ko waxee woon septembre bi passé xam nga defoon nañ ci vidéo doon ko wax mooy li ñu doon wax sànq waaw dinañ euh, seen système bi muy programme partenaire YouTube bi voilà muy euh, PPY bi dinañ euh, proposer ñi nga xam mooy créateurs yi ñuy defar ay contenu yu ko def ci YouTube yeneen façon yu ñu mën a maanaam développer ak yu mën a gagner ay xaalis yu mën a développer seen seen ak yu ñu mën a gagner xaalis. mu ne pour ce faire nous avons mis en place de nouvelles conditions d'utilisation concernant le programme partenaire YouTube auquel vous pourrez accéder via YouTube Studio cette semaine maanaam pour ñu def loolu nag am na condition yu bees yoo xam ne teg nañ ko maanaam conditions comme ni ñu la ko waxee vidéo short yi lañ ci intégré te amu ci woon léegi nag loolu dina jàppandi semaine bi maanaam si semaine bii dina jàppandi bu ñu ne semaine bi nag comme tey la mardi xam naa du génn semaine bi ñëpp dinañ ko jot incha allah rabbi muy euh, message boo xam ne di nga ko jot ci YouTube Studio voilà ci semaine bi mu ne euh, qu'est-ce qui va changer léegi nag lan coppite yooyu lan lan lay lan lay àndal wala bokk lan mooy soppeeku ci li ñu doon doxalee l'un des changement les plus importants concerne les partenaires qui monétisent leur con leur contenu maanaam mu ne changement nag yi ëpp solo mi ngi concerné xam nga tamit YouTube ñëpp a am ñu ñu nekk ci YouTube am nañ ay chaînes mais dafa am ñu nekk ay partenaires ak ñu nekk rek ñu nekk ay créateurs simples euh, partenaires yi mooy ñi nga xam ni dañoo yor ay chaînes. yu monétiser ñoo bu YouTube ne partenaire rek ñi monétiser la ci jublu su ne créateur mooy ñëpp ñu nekk ci YouTube di defar ay contenu di dugal comprendre voilà. léegi wax nag loolu euh, ñi muy gën a concerné mooy ñi nga xamante ni maanaam ay partenaire lañ yi nga xam ne dañu monétiser seen i contenu waaw ñi monétiser la amal solo que ñi monétiser wul mais ñi monétiser wul tam nañ ko siiw jàng ci parce que dañoo fas yéene bokk ci ñi monétiser loolu tam ñu koy bàyyi xel voilà am na ñoo xam ne des fois da ngay def vidéo ñu xool ni ñoom vidéo bi wàllu monétisation ñu bañ koo seetaan dama dem ba monétiser nag ñëwaat dinaan la waaw vidéo boobu defoon ko ci biir waaye xamatuma ban la ndax doo ma envoyé lien bi xam loolu day compliqué yow yaa ngi ci YouTube yaa ngi am tey nga créé chaîne bi monétiser ko vidéo bu dugg seetaan la voilà day tax nga xam rek xam-xam du doy plus ngay plus ngay xam mbir mbir mu munti nekk plus nga koy xam plus muy gën a oyof gën a yomb ci yow voilà loolu tam dafa mën a xam bu defal ñu léegi ils pourront désormais générer des revenus grâce aux dans le flux chaud maanaam léegi eh, ñi nga xam ne ay dañoo monétiser dinañu mën a gañe xaalis ci seen vidéo short yi ñu doon def ba pare ñu seetaanee ko ci section short moom mooy flux short bi voilà. léegi mu ne lan pour en savoir plus sur les nouvelles conditions d'utilisation consultez le centre d'aide maanaam boo bëggee nag gis am ñu lu gën a détail demal ci li nga xam mooy centre d'aide bi voilà. centre d'aide boo demee ay at bu gën a gudd nekk di faram-fàccee di détail def ci seen chaîne YouTube am fàcc léegi moo xam suuf que dois-je faire maanaam léegi yow mi nga xam da ngaa monétiser lan nga war a def voilà nga poser question bi lan laa war a def mu ne la à partir de cette semaine vous verrez une bannière dans YouTube Studio qui vous indiquera quand vous pourrez consulter et accepter les conditions euh, d'utilisation les nouvelles conditions d'utilisation maanaam comme ni ñu ko waxoon di nga gis si YouTube Studio bi benn notification bu lay informer ci loolu. notification boobu nag toujours bu ñëwee bu fekkee daf la def nga ko war a valider ngay cliquer valider def buñ ci tolloo dinañ ci def vidéo incha allah rabbi pour profiter di partage des revenus publicitaires générés par les shorts à partir du 1er février 2023 léegi lu tax nga war ko accepté mooy pour nga mën a bokk ci nga xam ne dañuy euh, gagné ci xaalis ci vidéo short yooyu war a commencé le 1er février gis nga 2023 la war a commencé monétisation bi vous devez accepter les nouvelles conditions d'utilisation avant cette date voilà léegi boo xam nga le premier février ñëwagul semaine bii la notification bi di ñëw da ko war a accepter balaa le premier février soo ko accepté wul say vidéo short dañuy continuer nekk ay vidéo short ay vidéo short simple mooy doo ko mën a monétiser voilà. bu dee accepter euh, les nouvelles conditions d'utilisation avant cette date si vous les acceptez après le 1er février 2023 le partage des revenus publicitaires générés par les shorts commence à partir de la date d'acceptation lii lu mu fi bëgg a xam mooy. su fekkee par exemple dañ la affichel tey la mardi suñ la ko affichelee suba ci mercredi bi nga bañ ko accepté di toog di toog di toog ba le premier février yaa ngi gis notification bi accepté woo comprendre nga. vidéo short yi commencé nañ léegi monétiser mais yow doo ci bokk parce que accepté woo nga bàyyi le premier février xam nga ak euh, activé nañ ko ñoom monétisation yow ngay dem di dem ba mars wala juin nga soog koo nga soog koo accepté. heure bi nga ko accepté yow ngay commencé say sóot di monétiser say sóot duñ monétiser fii ak accepté ko loolu loolu détail bu ñu mat a bàyyi xel la moo tax comme feeñ si sa YouTube studio bëggoo négliger accepté ko à partir du premier février nga commencé monétiser li ñu wax fi yaakaar naa leer na voilà. mu ne léegi nag pour continuer à monétiser vos vidéos dans le cadre du programme partenaire YouTube mu ne nag ci lu gën a yaatu nag sa chaîne ci boppam waxuñu la vidéo sóot yi mais sa chaîne ci boppam pour nga continuer nag chaîne bi di nekk bu monétiser. mun la vous devez accepter les nouvelles conditions d'utilisation d'ici le 10 juillet 2023 léegi lu mu bëgg wax fii mu bëgg wax ni maanaam date date bi ñu la may pour nga accepter ko nag moom mooy le 10 juillet bu ñu nee ba le 10 juillet 2023 te yow lii accepté woo ko xam nga xam nga leeralaat ko maanaam léegi YouTube day monétiser vidéo chaude yi mais monétisation baa ngi commencé le premier février comprendre notification bi neen dañ ko indi fii balaa 7 jours bu soree ba sori fekk 7 jours fekk semaine dinañ la mun mun nañ ko indi tey sax wala suba mais mais délai bi wax mooy 7 jours dinañ afficher notification bi kenn ku nekk da nga monétiser ci sa YouTube studio di nga fa mën a accepter condition yi soo ko accepter nag jeex na bu ñu commencé monétiser vidéo yi le premier février say vidéo short day commencé bokk ci programme ngay gagné xaalis ci vidéo short su fekkee le 10 juillet maanaam ñëw na. te yow bi ñu la envoyé notification bi accepté ko danga ngaa bàyyi rek notification bi noonu le 10 juillet ñi accepté dañuy monétiser yow doo monétiser heure nag boo ko accepté fii ba le 10 euh, juillet heure boo ko fi accepté heure boobu ngay commencé monétiser say choses léegi nag bu ñu nee ba le 10 juillet nag léegi bu ñu ko xasee romb le 10 juillet te accepté woo conditions yi boobu ba léegi non seulement du nekk say vidéo sot kese ñoo dul monétiser de mais YouTube sa monétisation lay dindi loolu la wax fii. loolu lañ bind fii noir sur blanc bañ na ba dañ ko def bind bu ñuul fond sax pour nga gën ci bàyyi xel voilà pour continuer à monétiser vos contenus dans le cadre du programme partenaire YouTube vous devez accepter les conditions d'utilisation les nouvelles conditions d'utilisation d'ici le 10 juillet si vous ne le faites pas soo ko deful votre chaîne sera exclue du programme partenaire YouTube soo ko deful sa chaîne dinañ ko génnee ci chaîne yi nga xam ne dañuy monétiser maanaam chaîne yi nga xam ne ñoom lañ lañ tuddee ay partenaires loolu ci bokk bala nga cee mën a bokkaat da ngay demander normalisation à zéro ñu vérifier at chaîne bi accepté ko voilà merci de faire partie de la YouTube ñu ngi lay sant ci bokk bi nga bokk ci euh, communauté wala groupe bi nga xam ne ñooy groupe YouTube waaw loolu li nga xam ne tënk nañ ko ci euh, message bi voilà loolu mooy li nga xam ne moom lañu leen di faram fàcceel leen ko moo jëm ci notification bi léegi notification bu ñëwee rek incha allah dinañ ci def vidéo wane niñ koy euh, cliquer accepté ko parce que lu la da ngay cliquer rek accepté kon gis ngeen ko euh, loolu mooy li nga xamante message YouTube envoyé na ko comme nañ leen ko waxee sànq euh, bi ñëwee tam dinañ defaat beneen vidéo bu gàtt wane euh, niñ koy activer incha allah rabbi kon ñu ngi leen jox rendez-vous ba vidéo bii di ñëw avant loolu nag ñuy demandé koo xam ne abonné ko te yaa ngi seetaan vidéo bi nga abonné soo abonné par exemple vidéo yi nga pour ñeneen jos si mën a xam ni YouTube mën nañ ci liggéey surtout jeunes yi nga xamante ni ñu si bëri dañuy taqale wala nekkuñ jàpp ñu sur lu dëgër loolu moo gën tax objectif vidéo yi loolu la pour nit ñi mën a xam ni yeneen option liggéey am na yu dul mu nga xëy rek dem di demande liggéey ñu naan la amul nga xëy di wër dem chantier ba ñu la noo jël nañ ba pare nangam waaw te fekk yow kat yaa ngi yow sa ciment fan boo xam ni moom mën ngaa ñàkk loo lekk de mais connexion doo ko ñàkk am na ñoo xam ne moom mën nañoo dee xiif mais connexion duñ ko ñàkk <laughs> voilà téléphone bi moom ak connexion ak loolu loolu mooy priorité téléphone day lekk ba pare ñoom ñu a mooy bu seen connexion jeexee même bu ñuy lijjanti deux mille wala mille franc jël wala cent franc wala deux cent jënd ko paas danañ ko def mais téléphone moom dana am connexion parce que bu ñu nekkul ci internet di surfer rek dañuy feebar <laughs> léegi nag kooku yaa ngi yor li may wax un mine de diamant non une mine de diamant sous vos maanaam koo xamante ni euh, dafa toog ci taatu garab goo xam ni doon naa ko wax un jour benn livre la wax sa bëggoon nañ ko développé ci seen sama bi mais ñaa manqué temps <laughs> mooy problème temps temps daal jafe na. Euh, koo xam ne dafa doon jooy du ñàkk te taatu garab gi mu toogoon di xultu di wax di jàmbat di wax ay problème ci taatu garab gi ñu ngi fa suul benn waxande boo xamante ne dafa fees dell ak jamaa maanaam ñu ay ah, ay siècle ñu ngi fa suul nekkutuñ mais xamu si dara mais mi ngi fi mu toog juste ba nga son un jot kees gi mais xamu si dara mi ngi toog taatu garab ndax saan daa ñàkk ba toog taatu garab jaaxle di jàmbat waaw léegi-léegi am na nit ñoo xam ne illustration boobu moom mooy feeñ ci ñoom yow da nga yor smartphone boobu mi ngi sa poche yaa ngi foo tool yaa ngi am connexion même boo ñàkkee loolu rek di nga wut connexion mu ngay wër dem chantier outil liggéey ñu la ñoo ah, fii jël nañ ba pare nga dem usine bay dem quatre heures du matin cinquante personnes ci bunt yi bu ñu xëyee rappel dix quinze vingt lañ jël ñu des nañ ñibbi daa dem leen ba suba comprendre nga wala daal yaa ngi daal def loo xam ne yaa ngi taqali dafay affaire te kat business baa ngi sa biir poos muy lan muy smartphone bi nga yor smartphone bi nga yor mën nga cee def liggéey ci ci ci àdduna bi xam nga ay jamono dañu doon wax euh, village planétaire ma àdduna bi léegi dafa mel ni benn benn dëkk bu ndaw la waaw te loolu li tax ñu koy wax nekkul àdduna bi mu tuuti dem ba nekk dëkk bu ndaw internet kese mu ab communication moo tax ñu koy wax muy fu nit mën di nekk ci àdduna bi mën na jokkaloo ak keneen mu mel ni dañoo toog loolu moo loolu moo mooy tekki àdduna bi léegi benn village benn kër la benn pénc la benn réew kese la voilà nit ñi léegi lu xew fii fii ci seconde bi te nekk ca beneen catu àdduna bi contraire fi mu nekk ni dana ko yëg ci seconde bi lu xew foofu ñun ñu ko ci seconde bi loolu nag ay opportunité business yu nganda nganda nganda la indi bu ci gën a mooy man man dama yor benn dàll di ko jaay dàll bi may jaay peut-être mën naa am ñu ma dëkkal intéressé mais maa ngi koy jaay ma posté ko ci internet bi kenn di tàppe di wër dàll boobu gis ko te ma nga nekk Chine wala Inde dàll bi intéressé ko mu commandé ko ma livré ko te loolu mooy li gën a tuuti ci internet lu muy jëriñ te kooku bu fekkoon ne internet amut kooku sama dàll bi du ko mës a jënd parce que kooku xaw ma ni existé na moom xamul ndax man existé na mais internet moo ñu faciliteel moo moo moo kase distance boobu amoon suñu diggante léegi léegi sama diggante yow mi benn seetaan existeetul man fii ma toog maa ngi toog ci pièce bi yow nekkoo fi yow yaa ngi may seetaan fii nga may seetaan man nekkuma fa mais internet bi tax na yow ak man dañoo jàkkaarloo nii di wax maa ngi nii di wax nga may seetaan loolu ko waral parce que internet bi mooy di possibilité moom nii nga xamante ni ñun ñaar noonu lañ jegante yow mii di ma seetaan ak man mii di wax nii ñu jegantee nii nii noonu la yëf yi jegantee en réalité léegi léegi nag su fekkee man mënuma jël dara ne ko jàpp ni yow nga téye ci saasi rek maanaam man kon comprendre ma internet lu muy jëriñ parce que mu nekk nii dafa mel ni li may wax yow nga koy dégg mi ngi mel ni man dama jël dara ne la ko jàpp nga téye noonu la demee léegi loolu boo xasee comprendre da ngay xam ni maanaam loo ci deful ci yow la xëy na beneen demoon dina dugg muy xam ak ñàkk a xam yow beneen affaire la mais lu ci nit réalisé wul ci moom la lu ci nit amul ci sa ñàkk xam mais boo xamee def am aussi simple que ça loolu moo waral vidéo YouTube bi ñuy jàngale muy loo xam ne li tax ñuy def YouTube bi mooy dafa soxlu investissement lu simple la yaa ngi sa smartphone nekk ci dëkk bi taxawaala moo liggéey jëlal smartphone bi même bu dee da ngay ci dëkk bi di di di di xool benn affaire bu la intéresse ci dëkk bi nga koy filmer jëlal sa téléphone ngay wàññi portlan bi ci dëkk bi di leen filmer dugal YouTube nit ñi lañ lay seetaan xam lu koy def divertissement lañ koy def xam nga boo xam nga yow mii da nga naan xam nga def bu njëkk ba dañ suñ bëgg wax nit ki amul liggéey dañ naan day xëy di wàññi ay portable maanaam day xëy di taxawal quoi liggéeyalu loolu terme bu ñu naan utiliser la xaw ma ndax xale yi dañ ko xam day xëy di wàññi ay portable lañ daan wax te pourtant xëy di wàññi ay portable boobu ñu doon wax jamono yi mu nekk mooy tekki nit ki day some la daan tekki fu mu nekk nii su ma xëyoon jël sama smartphone di wër di compter ay portable di ko poster TikTok ak YouTube ci kanam tuuti divertissement lay nekk pour ñi may seetaan dinaa si mën a am ay vues dinaa si mën monétiser am na foo ci egg nga mën def ay publicité placement de produit et cetera et cetera kanam tuuti nga mën a créer sa ay affaire di ko jaay beneen business créé wu ci loolu internet kese kese kese moo ko mën kon buñ ko négliger jeunes yi nga xamante ne jàpp nañu si dëkk ñu jël ko bu baax baax di ko utiliser man fu mu nekk nii am na loo xam dama ko daan def dama kaa bàyyi xbet bi bi mu duggee si dëkk am si doole ba léegi ay jeunes yi am ay dix-sept ans dix-huit ans quinze ans seize ans vingt ans bu ma si ñaan xaalis du la may parce que automatiquement damay jàpp da nga koy carte du la si jàppale aussi simple que ça voilà parce que léegi loo si loolu lañ bëgg a focaliser seen dund maanaam muy xbet bëgg a jël xbet bu ko def métier xbet du métier xbet du métier parce que carte la carte la bu yàggul xam naa ñu ngi xaw a guddal tuuti mais dañuy waxtaanal rek <laughs> bu yàggul dama dugg benn euh, clando jóge kaas ba jëm si si kër chauffeur bi am lu am lu muy ñaxtu noonu quoi man dégguma ko bu baax ma defee ne travaux BRT bi xam fa lañ jaar BRT coté Kaal ma ne ko non muñ leen rek léegi mu pare bu paree dina neex si yéen ñëpp quoi parce que travaux yi fekk pare day naqari ma ne waxuma loolu de ministre yi suñu xaalis bi la xam ko ah d' si waxtaan noonu ba yàgg ma ne ko euh, léegi benn affaire dama jaaxal ma gis nga ñi sax ministres yeeg euh, daas yi ne ñoo xaalis milliards yooyu ci fond Covid bi ne ko ñoom ñooy sàcc yu mag yi am na yeneen sàcc yu ndaw mu ne ma ñan la ma ne ko Auchan yaa ngi fàttaliku jamono manifestation mu ne waaw ma ne ko Auchan dëkk bi leen toj dévaliser leen maanaam sàcc la fa nekkoon lépp man na ko léegi ñi duggal ci Auchan di sàcc est-ce que ñoom ñi mag ñi ponkal yi bu ñu sàccee milliards yi ñoom est-ce que jar nañuy kaas ma ne ko ñi nga xam ne sàcc ñun Auchan moom mun nañ kaas parce que seeni milliards lañ sàcc mais ci doon sàcc Auchan yi dañoo war war ñu wax ba pare ma ne ko li gën a garaaw mooy ay ministre ay DAGE lañ wax ñoo sàcc xaalis ñoo ko ay détournement ma ne ko ñu doon dugg ci Auchan yi di sàcc ñu si bëri ay élèves lañ te ngi si école di jàng ñooñu imaginer ñu kon di jàng di jàng di jàng di am seen diplôme dem université génn def ay formation ba am ay liggéey nekk ci état bi di liggéey maam ci fonction publique administration ñooñu nga def ne bu ñu nekkee ay DAGE ak ay ministre dinañ bàyyi xaalis mu romb ma ne ko noonu duñ bàyyi xaalis mu romb ma ne ko moo tax affaire bi ku nekk am nga ci responsabilité DAGE yi sàcc que ay sàcc la ñoon bi ñu nekkee xale seen biir kër yi xale yi nekk dëkk bi nii di jouer expert yàlla xam na ne bis bu ñu màggee ñu dénk leen ay fonds yàlla bu mu nekk ay fonds Covid Covid moom yàlla bu mu fi mais yeneen fonds yu leen munti dénk danañ ko sàcc question de temps kese la mais sàcc gi day soog a commencé kon vidéo bi xam naa mi ngi gudd ñeemale ko foofu dañ jox rendez ba vidéo bii di ñëw incha allah rabbi jërë ngeen jëf.